na nga def. sant yàlla. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. noo tudd. man Mouhamed Lewey laa tudd. Mouhamed Lewey. waaw koo jógee. Ndar. Ndar nga jógee. tànk yi yàgg na. tànk yi waaw depuis daaw la. daaw mun nañ xam mun nañ xam ni mu la dikkee woon. waaw tànk yi nag. Hmm? man sama digg gannaaw. sama digg gannaaw laa ko doon yëg. sa digg gannaaw nga doon yëgee. waaw métti métti foofu si diggante yax yi foofu. waaw jotoon naa ci dem hôpital ba ni ma. Mhm. deret ju tàncu la foofu daal neer yi ñoo tàncu foofu. hôpital ñu la neer ñoo tàncu. waaw après ñu ñu opéré la fii lañ ma opéré hôpital Fann. hôpital Fann mhm. doxatuma mhm. waaw jàpp mujj gi dem ba mujj gi doxatuma. waaw dem ba bu may dem douche bu may dem kii yëpp du ma ko yëg daal. waaw après gannaaw ba ci lañ ma opéré. bi ma opéré après doxatuma. ma tëdd sax tëdd rek laa daan def lu ma def dama daan dama daan tëdd. nga daan tëdd. waaw. ok ma su ma yëkkatee su ma toogee ma ne tëddee ma ñu tëddalaat ma. Mm-hmm. tuuti ma toogaat tuuti noonu laa daan def même bu ma bëggee wëlbati dañ may wëlbati. ñu lay wëlbati. waaw dañ may wëlbati su ma bëggee toog dañ may yëkkati dañ ma. d' accord lan nga lan nga doon euh, maanaam ci lan nga doon yëngu. man damay jàngale alquran. ngay jàngale alquran damay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha ci barke yonent bi lañ lay faj kon yow. waaw ndax man taalibe xulaam rasul la. ndeysaan. waaw nekk ca Ndar. ndeysaan. nekk nitu yàlla bu mag. ndeysaan. waaw man nekkoon nag gànnaar. ah dëgg la. di fa jàngal xawaan nekkal ka fa. Mhm. nekk taalibe boo xam ne dama nekk foofu. Mhm. gannaaw bi mu génnee àdduna. Mhm. ma ni damay damay jaayante. dem ubbi fa daara di jàngale alquran. ndeysaan. depuis 2008 ba léegi maa ngi foofu nag. dëgg la. incha allah chaque année may def di jóge Sénégal di ñëw foofu. di macha allah mu nekk mu sant yàlla sant yàlla wuyu ma santal yàlla. Ah, santal yàlla yàlla dina defar lépp. li nga xam ne moom la doon jàngale du doon neen aafiya incha allahu rabbi ñun dinañ def suñu kéemtalaay kàttan. ne ni Mauritanie daal am nga fa dara am nga fa mbooloo daal. diwal diwal macha allah diwal diwal baax diwal bu mu gën tooy. bàyyi ko yëngale tànk bi ma xool yëngale ko sa bopp mënul yëngatu. baaraam bi rek a mën a yëngatu mais yi des mënul yëngatu. taxawal maa ngi lay déglu téléphone waaw bul jàpp bul jàpp tànk yi waaw ñu tënkal ko ci lu lu gàtt rek sëñ bi ñu gis euh, waa ji nga xam ne moom nga doon laaj léegi hmm. euh, lan nga gis jàngat ci ci ci lim la wax ak ak lan lan moo ci sa xalaat sant yàlla di julli ci yonent bi di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin waaw mhm. ah, yooyu dafay firlee li jullit lu ko mën a dal rek cant la koy jàppee doo nekk metti na mhm. ndax xam nga dama ko wax waxati ko dama ni leen la daan Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum wax na ko waxati ko sax mhm. nee la daan xeex diine ba tey mu ngi fi te jóge fi muy jinne yu bon yi gis nga boo nekkee di yaatal diine di jël diine di ko sol ci xolu doomu aadama yi. Mhm. ñoom seen fexe seen pexe. Mhm. mooy lu ñu la fakkastale ak lu ñu la gàllankooree ba la ngay woote dootu ko mën ndax dañuy wax ni looy def day fekk nga tal ko. Mhm. waaye ñu nit ñu sant yàlla ba nga xam ni tey bu ñu defee ñoom it seen i pexe ba jàpp ni fii la. ñu nit ñu santaat suñu borom bi ñu yàlla mayee. ñu mën a xam ni lii lañ def ci tànk yi. ñu nit yàlla mën a dogal ñu mën koo génne. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi moo tax ñu amaana xëy na am gisee bi na rek mais lan nga lan nga lan nga yëg bi la waa ji waxee ni jàngkat jàngale atu katu alxuraan la woon. tàggkatu yonente bi ak yow ni nga bëggee <laughs> alxuraan. nag gis nañ ni gis nañ ni sa kër fekk nañ fa keesu keesu kaamil goo xamante ni maa ritaali ni mu toll ay kaamil la yeb ba fees dell. bi la kii ne jàngalekatu alxuraan la ak ni nga bëggee alxuraan ak yonente bi tàggkatu yonente yi. sama xol daa sedd guy afiya. Mhm. nga. métier bi mu nekk gën métier bu waaye nekk ci àdduna mhm. mooy jàngale alxuraan mhm. kooku moom avion uh-huh. kuy wut métier uh-huh. moo ba gën ñu nit moo tax dañ ci dañ ci dañ ciy sant yàlla mhm. yàlla dogalee ñu mën cee def suñu kéemtalaay kàttan it ba mu war a delluwaat ca daara ja dem faj bi alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf faj bi a ci bismillah